anasil l'islam momam na kane meno hmm. nana fala l'islam a baji problème i hmm. dango len andewol hmm. assisté ah, woon eh, moo kam me joole yoolo lu kontaan kontaan yu mamak jiriñ jaatu joone mo rew lu kontaan kontaan e woni kokkore salo fan e eh, amisilma momam rakane mi o mm-hmm. salo sel mamak e de la façon o jojo ko anda kam mi yo mm-hmm. merci beaucoup jazakumullah kon yo imam Badji mu tënkal ñu ci wala kàddu nga xam ne imam jini yëkkati na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ñu ngi leen di nuyu ci tënk li nga xam ne moom la imaamu quartier bi Ibrahima Diémé li mu wax nee na gannaaw ba mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi rafetlu lool lool seen ñëw bi di leen masawu coono coono bi nga xam ni diggante ndakaaru walla Touba ndakaaru ba fii ni mu soree ñoom yëg nañ ko nee bu yàgg jot nañu fi mission bi fi ñëw di wax ne dana am beneen mission bi ñëw mooy yéen ñu def fi liggéey bu mucc ay euh, di ñoom ñu rafetlu ko lool lool lool waaye tey ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaye di leen jot li sant gërëm famille bi yëpp famille Famara euh, Goudiaby bi euh, lii di yaayam ak yi mbokkam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jottali nuyoo xalif général di Mouride nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountaga Bachir euh, Mbacke su ngeen demee jottali ko nuyoo waa jànk yëpp waaye jottali ko nuyoo département di Bignona jottali ko nuyoo Sénégal ndax lii mu def ñoom dañ koo rafetlu kenn du am dëj ba pare ne kontaan nga waaye action bii ñu gis ak bu rafet la boobu ñoom duñu ko fàtte parce que marqué na leen mhm. ba keroog yoomal xiyaama mhm. duñu ko fàtte mhm. kon moom seede ba mu am ci xale bi nga xam ne mooy Famara nee na ku baax la woon ku fonk diineem la woon ndax bu ñëwee fii moom ci jàkka ji la koy gis te moom fu mu ko gisi tamit gën a ko nuyu jox ko cëram kon loolu xale bu def loolu xale bu baax rek moo ko mën a def di leen sant di leen gërëm bu baax a baax